وبعد ما مثال الميمون من ناس غير وعي مغلمون أنا أقول سنتي الله جريت نبي صلى الله عليه وسلم نيجي نبالا من في فك يبكي نو كتشي نك تطرم أجمعهم دينيا ودي جيجي مدينة باي تطري خليفة شيخ مدى تجاني إبراهيم خليفة مولانا شيخ إبراهيم nga xamne ci ndigalam nañ fi ñëwé tay gannaaw bi nga xamee ne yëgal nañ ko xew-xew bu màgg bi muy guddeeg leylatul qadri euh, ñaanoon ne bëggoon nañ ñu ñëw teewee ko dëgg-dëgg sëriñ bi abal ñëpp ñu ñëw utu ko fii ci barab bi ak ci jataay bi di ñu fàttali kóllëre goo xam ne kóllëre gu yàgg la yoo xam ne ci maam yi ci maam yi ci bàyyi ba ni mu fi agsee tey kóllëre googu rafetoon lool ñu di ko di xol ci anam wu nekk ci waxtu wu nekk ba nga xam ne jataay yi dafa dem ba niroo ba nekk di benn li ko waral mooy benn gi nga xam ne moom lañ nekkoon ñoom ci seen biir ah, lépp li kenn ki def ci ñoom dina ko yëgal ko ca des bu ko defee mu ñëw teewee ko moo tax ne ñu ngi ñëw di feddali kóllëre googu Euh, di indi nuyoo sëriñ bi ak ndokkeelam boo xam ne mu ngi ko jëmale ci guddi gi di nuyu njaboot gi nga xam ne amuñ ci ki sàkk mook njaboot gi nekk fee génn njaboot la ndax ñu bokk diine ji ñoo bokk lu baax li nga xam ne ñu ngi koy def fii ci àddina dëgg yàlla am kenn du ci def dara te du ne diisoo nga ak sa morom te loolu mooy lislaam mooy àndoo ci mbokk moo àndoo ci yàlla waaw waykat ba daf doon wax ne maa kaana lillaahi daama wattasal wa maa kaana li gayrillaahi inqata al fasal lépp loo gis mu sosu ca yàlla loolu dafay sax dafay béel dafay jëm kanam waaye lépp loo gis mu sosu te sosuut ci yàlla rek loolu du dem fenn kon lii rek doy na tegtal ne wax dëgg yàlla am seen sosu bi ñu ànd di ko doxal ci yàlla rek la ba tax na yoon bi nga xam ne mooy ñi ñëw nañ fi dawul suñ première fois ñëw nañ fi màggal ba tey ñëw nañ fi jotaay yu bari yoo xam ne wax dëgg yàlla am jataay yi mën naa wax ne ay rakk-rakk la ci jotaay yooyu loolu bu amee lu muy tegtal rek mooy àndoo guñ àndoo ci yàlla bëgg buñ bëggante ci yàlla ak kóllëre gi nga xam ne dox na seen diggante ak ñoom ñu di ko doxal kenn ku nekk ci ñoom dëgg yàlla mën naa wax ne xalifa yi fi toog yëpp kenn ku ci nekk rek boo toogee dëgg yàlla am yaa ngi feddali kóllëre googu nga xam ne nekk na ci sa kër ak sa yeneen kër diine yi Euh, ba tax na tey jotaay tey bi li ci firnde mooy boo toogee man da fi gis kër ak diine yu bari fasanti ko loolu boo amee lu muy tegte rek mooy li nga xam ne moom laa jundu léegi ba tax ne ñu ngi ñëw ànd ak mbégte ak kontaante ñëw di indi nuyoo pay bi indi nuyoo xalifa bi indi nuyoo imaam ak njaboot ak Mawlana Cheikh Ibrahim yëpp. muy Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Aziz Baara ak Serigne Abdoul Ahad Mbacke Gaynde Fatma mii nga xam ne moo leen tax a jóg ak mbokk yi fi nekk ngi Serigne Bassirou Mbacke ibnu sëriñ Moustapha ibnu Cheikh Mamadou Lamine Baara ak sëriñ Modou Mbacke ibnu sëriñ Sidi ibnu Cheikh Abdoul Ahad ak sunu wëllëre yu fi toog mu tuddee maître Khassoum Touré di sunu wëllëre di sunu xarit ak sëriñ Abo Mbacke ibnu sëriñ Fallou Asta Dieye ak sëriñ Sidi Kunta jóge ba Ndiassane ñuy bég di kontaan di rafetlu tànk yi ndax. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم دل وخاني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرخوا لي ني بولي نك سونو ديغنت اك يين داماي وخني علاقه باطنيه لا علاقه ازليه باطنيه موي علاقه بو خامني سي ديغنت شيخ الخديم لا تامبلي وون اك سيرين عبد الله نياس واتي با نيو با تي صاحب الفائده الرباني مولانا شيخ ابراهيم نين بوك تي موم دي اي ستم تي القران واخني والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم بوت بوبو لا نين دي خولي كون بو نين ديبلاسي نيو تي بيس بي موي بيسو ليله الخضر te guddi gi fiiha yufraxu kullu amrin hakimin guddi gi ci la sunu borom subhanahu wa taala di faram fàccee mbiri jaam kenn ku ci ne nag ak ni nga ko gisee ak ni nga ko déggee ñii di ko def bu koor gi desee ñetti fan Sëriñ Tuubaa jàngaloon ñu ni bu terew bi sàngam ñaar fukki fan lay doon ak ñaar wala ñaar fukki fan ak ñett mu tombeek tey jii sunu maam ji nga xam ni moo fi nekkoon daan ko def ci ndigalal ay magam yu baaxee Cheikh Mouhamadou Moustapha te dañoo wax ni laa tafaalu shay'an bi xayri isnin fal isnu shartun fi xabuli sha'ni bu leen jëf dara lu àndut ndigal ndax jëf mu ànd ak ndigal sart la ci la ngay jëf suñu borom nangu ko kon bu ko doon def ci jamonoy Cheikh Mouhamadou Moustapha te ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ngi mi ngi doon Serigne Touba 1927 ku la joxoon ndigal te jóge fi 1945. yaakaar naa ni kon màggal leetul xadar gi soxna si def na ko ren ji bokk ko xool mi ngi ci juróom ñaar fukki atam wala juróom ñett fukki atam kon day wane ni bayit wi nga jàng léegi rek maakaane lillahi daama wattasal wa maakaane li xayrillaahi inqataa wan fasal lépp lu nu nit yëkkati te yàlla tax kanam la jëm mais bu yàlla taxul lum kawe kawe kawe ci suuf la jëm kon day mel ni ndigal la nga xam ni moo ko moom la ci amoon ci ay magam Dan ko def jaar ko ci moom Serigne Modou Moustapha ñëw ba ci Serigne fallu ñëw ba ci Serigne Abdoul Ahad jaar ci Serigne Abdou Khadir yagul ñëw ba ci Serigne saliw kon fay wane ni mom lam doon def ci base yu wóor la ko tegoon fa ngeen jóge nag ak kër gi benn la dama leen di nuyu léegi dama leen al baytu baytukumu wal ahlu kon kër googee ngeen jóge ak kër gi ngeen dugg si benn la njaboot gi fi nekk seen njaboot la jëmm ji ngeen ñëw nag muy Cheikh Abdoul Lahad Mbacké Gaynde Fatma dañoo bokk ak moom mu am qualité yoo xam ni daf ko yor loolu moo waral ngeen bàyyi seen yitte weeru koor ak ni mu xate ku ne xam na ni amu leen jot te sëriñ bi ku nekk ay tànkam amoo jot amoo temps wala fi nag dañuy wax ni bët mën naa xool fu ko neexul làmmañ mën naa wax lu mu gëmul xol man na fas lu deggul ci mom waye tànk fu mu dem borom ko fa yob kon bu ngeen joge kaolak ba fi day wone ni mom yëg ngeen ko fonk ngeen ko te yëg gogu nak ci kóllëre rek la tege ndax wa awfu bil aadi inna al kana masulan yàlla mo nu ko digal fa tabaarakallaahu ngeen ñëw xolam sedd ci mu kontaan ci mu nek jëm jo xamne bu ngeen gisse bi ngeen ñëwee fek fi ay mbokam day wone ni mom li nga xamni mom la ko fi ay maamam rafaatale mu ànd koog waajuram ak ay kilifaam di ko doxal ñu fab ko jiital ko ci liggéey bi day wane ni fa tabaarakallaahu responsabilité boobu xam na ko te dañuy wax ni masul day ñeme masuliya responsable day ñeme la responsabilité kon na moom responsabilité boobu nga xam si ni yàlla gàll na ko ci loosam mu koy doxal ci diggante ak njabootam xam na ko nekk nit ku baax yor ay jikko yu rafet ndax innamal umamun axlaaqu ma baxiyat فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وبعد ما متالف الميمونة من ناس غير وعي مظلمون